الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما صلى مسل وكبر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد بكل نعمة أنعمتها ولك الحمد بكل حسنة تقبلتها ولك الحمد بكل سيئة غفرتها ولك الحمد ولك الحمد بكل كربة كشفتها ولك الحمد بكل مصيبة رفعتها لك الحمد بكل مال ورزق رزقته ولك الحمد بكل مرض شفيته ولك الحمد بكل ولد أصلحته ولك الحمد حمدا كثيرا كما تنئم وتتفضل كثيرا لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد بداد كلماتك ولك الحمد رضا نفسك ولك الحمد زينة عرشك لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد كله بما يسرت لنا من صيام وقيام وتلاوة ودعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن النذير والشبيه والكفء والمثيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة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 وحمدا يملأ ما بينهما أحق ما قال العبد على الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر بخواطرنا الحمد لله الله أكبر بخلايانا الله أكبر في رجع أنفاسنا الله أكبر في حركاتنا الله أكبر في سكناتنا الله أكبر حتى يرضى الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا دومون دي مبك jullit soppe yi ginnaaw sant borom bi subhaanahu wa taala li yeyoo ci ñu sant ko ak julli ci suñu sang suñu soppe suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñu julli ci moom moog njabootam ak ay àndandoom ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala ci bisu xéewal gu gi ci bis bu màgg bi ci biiru umma bi di sant borom bi di ko kañ di ko delloo gëddëm di ko màggal ci kaw lépp lu dul moom ñuy wax allahu akbar allahu akbar yàlla moo gën a màggal gën a màgg lu ne allahu akbar yàlla moo sàkk lu ne allahu akbar yàlla moo moom lu ne allahu akbar yàlla moo am lu ne allahu akbar yàlla moo xam lépp allahu akbar yàlla képp moo sañ lépp allahu akbar moom la ñuy jaamu moom képp la gëm moom képp lañu yaakaar moom mooy defar moom mooy defaraat lu yàqu ñu ngi wax allahu akbar borom bi bon ñu ngi lay sant di la kañ di la màggal ci xéewal yëg ñu defal xéewal yoo xam ne du jeex munuñu koo peeg munuñu ko tudd lépp munuñu ko melal lépp liñ ci yëg ak liñ ci yëgul liñ ci xam ak liñ ci xamut liñ ci teewlu ak liñ ci teew teewluwul borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi lay sant di la màggal ci bépp jëf ju rafet joo ñu baaxe ba ñu jëf ko ñu ngi ñaan nga nangul ñu ko borom bi ñu ngi lay màggal di nga di la kañ si bépp ay ak bala boo xam ne jëmoon na ci ñun nga jiñal ñu ko nga wëlbatil ñu ko borom bi ñu ngi lay sant di la kañ ci bépp jàngaro boo xam ne moo xam ñun la dal wala suñu njaboot boo xam ne saafaral nga ñu ko yàlla ñu ngi lay sant di la kañ ci bépp bépp wërsëg bo xamné ne ngoñu ko mo xam wërsëg lu ñuy wala lu ñuy naan wala même ngelaw bi ñuy borom bi subhanahu wa taala ñu ngi lay sante di la kañ ci ci xéewal bi ñu défal ci féké wéru koor wu tedd wi dugg ci ci bismillahir rahmanir rahim ak genn ci ci alhamdulillah yalla bur bi ñu ngi lay sante di la kañ ci li ñu ñu wor wi ba pare taxawee guddi yi ñu la ciy sant ñu lay sant ci li ñu xéewale ñuy ubbi sa téere bi di jàng sa alxuraan bi di tàllal suñuy loxo di ñaan nga ñuy nangul loola bon borom bi ñu ngi lay sant di la kañ di seede ne amoo ndend amoo bokkal sa nguur ko sa koo bokkal sa nguur gi amul keneen ku yore beneen nguur koo koo nirool nguur wala koy nawlonteel ñu naan kee nawlem la wala kee naataangoom la wala kee mappandoom nga ku wér nga càppaa culi nga ci sa arche bi ñoo ngi lay sant di la màggal ci bis bu tedd bii bis bii ñu ngi lay ñaan borom bi subhaanahu wa taala yow mi nga xam ne yow yaay mañe maye yow yaay xañe bis bii nga wax yaa ngi ci wàcce say malaaka ñuy seede say jaam bis bii nga ne yaa ngi ciy dotti ay xéewal yoo xam ne ah xéewal yi pour góor ñi pour jigéen ñi pour ndaw ñi pour ñëpp yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla boo ñu si xañ benn ci peppu xéewal yooyu la ca rëy la ca rëy soxla nañ ko la ca ndaw soxla nañ ko ñu sa dara yàlla yàlla na nga tasaare ci suñu xeet wi ak suñu askan wi ak suñu réew bi jàmm yàlla ñu ngi lay ñaan jàmm ci réew mi ñu ngi lay ñaan jàmm ci njaboot yi yàlla ñu ngi lay ñaan nga tàppe xol yi yàlla ñu ngi lay ñaan nga def mbooloo mi mbooloom sunna yàlla ñu ngi lay ñaan mbooloo mi nga génn fi seytaane nga génn fi balaa nga génn fi ràgg nga génn fi xiif nga génn fi tumaranke nga génn fi bépp xeetu ay nattu yàlla yàlla nag ñu dindil covid bi ak leneen lu ne ci ginnaawam ak leneen lu niroog moom yàlla ñu teggil loolu yépp euh, ñu ngi bëgg a fàttali leen mooy ñu xam ne xéewal gi ñu borom bi defal mooy fekke weeru koor tal ko mën koo woor nañu xam ne weeru koor lan lay dox weeru koor war nañu xam lan lay dox weeru koor jàngale la école la école bu jàngalaat jullit ñi weeru koor école la boo xam ne ginnaaw jàngale dafay yar jullit yi xool leen rek li ñu fi taataan ci ay jikko yu rafet xool nu jullit yi nit ñi sedd ni ñu dale ginnaaw fitna yi ni ñu wàññikoo déggatuñu lu bari déggatuñu histoire yu bari weeru koor moo mel noonu jawwu weeru koor moo mel noonu ñu ngi ñu téeloo suñu làmmeñ yont bi ne la soo fekkee ne yaa ngi xëy nga woor dégg nga melal ni ku armal di wër kaaba gi di aj màkka falaa rafasa wala fusuqa bul wax lu ñaaw bu ko fekkee bul seede ay bul jëm ci fitna da nga daw fitna su la nit tappaasoon tooñ la bëgg laa indi fi na ne ko inni saa im inni saa im man kat damaa woor jéggal ma moo la tooñ yow nga ne ko jéggal ma lu tax daw fitna xoolal jikkoy muñ xoolal jikkoy tabe ñaata la ñu saraxe fii waxuma saraxe tàndarma rek mais am na ñuy génn ci lëndëm gi di dugg seen kër dëkkaloo di fa yóbbu ay dépense di fa wàññi ay ravitaillement am na ñoo xam ne ñu ngi bokkal seeni bokk ci biir sàppe yi ñu génn leen gis benn waay tafu nit nga naan kii moom xanaa kalpem la soxla nga gis muy muy roof ci poosam dara wala muy roof ci loxoom dara xoolal jikko yu rafet yi jikko ñun ñëpp ñu yëg ne ñun ñëpp nekk benn famille lañu ñun ñëpp benn benn xeet bi lañu amul sant amul askan amul waaso amul kii fee la fee la jeng jëm wala lee la gëm loolu lépp ñun ñëpp ñu jaxasoo ñun ñëpp ñuy ànd di naafilandoo di defandoo di yëkkatindoo di tegandoo loolu bon weeru koor école la weeru koor stage la dafa am lu muy former ay nit dafa am lu muy defal de formation nit ñi waaye estage boo gis su ci nit génnee dafa war a am examen buy sanctionné stage bi mu xam ndax admis na wala admiwul mbokk yi est-ce que bëgg ngeen xam kenn ku nekk ndax admis na ci estage yu weeru koor wala admiwul nu mu koy xamee mooy lan mooy ci biir weeru koor dafa am ay farata am ay naafila farata kenn du ko discuter farata loolu mooy def nit jullit waaye nag naafila mooy mottalin mooy tax jullit raw moroomam farata ñëpp a ci yem ñëpp a yem tisbaar ñeenti rakk rek loo sawar sawar it ñemoo cee dolli benn rakk Euh, leneen li nga xam ne euh, li ñuy def asaka alal farata yeneen farata loolu la ñuy nekk jullit waaye ci la foofu la ñuy rawante waaw ci la ci la saraxa alal yi ci naafila julli ay naafi la ay ay julli guddi ci naafila def yu baax ak jikko yu rafet fa la ñuy rawante mbokk yi nañu xool soo bëggee xam foo toll ci at mi ci weeru koor dégg dangay xool lii ma lay wax mooy nee naa weeru koor nit dana ci génn ñu yokkal ko garaat moo ñu ràngal ko ay garaat nit dana ci génn ñu rekkil ko ay garaat ñu folli ko nit dana ci génn dara changé wu yokkuwul wàññeeku yàlla ci yàlla musal ki yokk ki ki ki wàññeeku ki yokku garaat mooy kan mooy ko xam ne bi mu génnee weeru koor weeru koor jeex na léegi farata bi kese moo jeex mooy xiif ak mar ñàkk lekk ñàkk naan waaye lépp lu doon naafila day wéy li ñu bëggoon mooy li nga jële li nga li nga màngoon ci weeru koor ci jikko yu rafet soo génnee weeru koor continuer ko wéyal ko wéyal di saraxe wéyal baax ci sa dëkkandoo wéyal ci di wax lu ju rafet wéyal ci di saraxe wéyal ci di di di di di muñ di muñal sa dëkkandoo di jéggale di jéllale ak jaamu yàlla yi naa fi la jaamu yàlla yi mooy yaa ngi takkoo woon alxuraan xoolal liñ fi jàng lu mu toll même li nga jàng su tolluwul noonu defal bis boo xëyee na nga ndékkee alxuraan la njëkk a dugg ci sa sa ginnaaw ngelaw li dugg sa bakkan bii dégg nga lépp lool balaa ngaa def dara sa kol sax ubbil téere alxuraan nga jàng ci lu tolloog la nga man ñaari benn hisib benn jus wala benn xët wala donte benn xët nga xëyee ko sa bis soo demee ba war a tëdd li ngay mujje mujjeel alxuraan na alxuraan na bari ci suñu dund lañ doon tudd yàlla ci weer koor xool mbokk yi subhanallah ñaata la ñu tudd yàlla subhanallah walhamdulillah ay zikkar zikkar yooyu nu continuer nit nañ koy continuer ci bis bi looloo gën a woyof ci làmmeñ yàlla nee na moo gën a diis ci balance ëllëg bisu penc subhanallah walhamdulillah xool da ngay dem di ko wax di dawal sa ko oto di ko wax taxaw ci arrêt di xaar kaar di ko wax jigéen bi di ñuulut ciinam di ko wax xale bi dem ci teen di ko wax xale bi gàddu saxam dem école di ko wax bon loola nañ ko la lii lañ ñuy peeseel ëllëg moo yóbbu nit ñi àjjan mooy xam nit ñi àjjan bon loolu dañ ko war a wéyal jikko yu rafet yooyu dañ ko war a wéyal naafi la guddi am na ñoo ne ci weeru koor la ñu njëkk a jànge julli guddi am na julli wala mujj si guddi bon nag loola dafa war a des du pour weeru koor dafa war a wéy ci at mi nañ ko continuer di julli yàlla dafa bëgg ñuy julli guddi soo bëggee def sa bopp nitu yàlla yàlla du xañ kenn ku ko bëgg a jege ku bëgg a jege yàlla jege ko buntu yàlla tëjuwul mooy ginnaaw say farata defal say naafila guddi gi soo ko xaajee ñetteel bi xaaj bu mujj trois heures et demi jëm fajar dégg nga wala lu mel noonu kenn ku ne tolloog li nga mën donte ñenti rak donte juroom benn rak yow fan wéru minute nga mën defal 30 minutes yoon di nee na jullit bu mu ko xañ bopam donte lu toll ni lu nit di ratt aw béy donte lu tudd di ratt aw béy nako def bon nañu góorgóor ci julli guddi nañu lu ci yenen ak nafil ki def lola weyel lola kooka na xamne at mi na rangal lañ ko ay galat waye ki nga xamne ñaarel bi nga xam ne moom wéru ko koor weerul weeru koor ah non non ni mu don def rek ay julle mu dem julli suñu ci mu dem def suñu ci su wéru ko ñëwee du changer du yok dara su weeru koor passé du wàññi dara kooku yëgalul boppam sax ne weeru koor am na lu mu wuuteeg yeneen weer yi kooka mooy kenn avancé wul ki demul kanam dikkul kenn du ko xañ yiwam waaye nag ñàkk na xañ na boppam yiw wu bari ki rekki ay garaatam nag ki nga xam ne moom moo dañ ko folli folli ko moo folli boppam mooy koo xam ne weeru koor dafa jub <clears throat> mu daal di jël ya doon bàkkaare ah léegi nag weeru koor ñëw na weeru sell wi ku toll ni borom bi ah man de weeru koor du ma ci def lu ñaaw mu daal di fax faxas kamam daal di koy aj diw ko ba mu kii aj ko kee jël gitaaram diw defar ba mu jekk mu def ci mbu usam denc kee jël paquet sigaram ne ah man de araamal naa di tox ci weeru koor mu jël paquet baa goros bépp denc jël gën ga daal di fomp daal di diw daal di kii def ci suufu walisam daal di di xaar lan di xaar weeru koor pare léegi nag mu ne ah weer wa dem na léegi nag def nañu defal nañu yàlla li mu bëggoon léegi nag yàlla it na muñ bàyyee ñu ñu bëgg hmm. wallaay kooku kooku mooy kooku mooy rëcc rëcc boppam ci weeru koor yàlla ci yàlla musal loola xëy na li nekk ci société bi du ñu mën a wax lépp waaye ñu junj ci yenn rek bokk na ci defar yu ñuy defar ci jikko ngalla waay ngalla waay yàlla nañu yàlla wërsëgal ba Sénégal ak alamul islamique ak adduna bi yëpp ñu wéyee jikko yi ñu jële ci ci jikko surtout jikko parce que jikko fondement diine mooy pas-pas fondement jikko diine mooy pas-pas ak jikko waaw pas-pas ak jikko ñoo wéetal yàlla xam da cëru yàlla nga jox ko cëram xam dayoo yonent bi nga jox ko dayoom nga teg lenn lu ne palaasam loola loo ci teg rek jikko jikko bu baax la xoolal li ne ci réew mi sooy lire journaux yi li ngay dégg ci ay reyante ci ay agression diw agressé na diw diw ñoom attaqué nañu diw jël alalam wala ñu def nii wala ñu jalgati ay ak xam dégg nga ak reyante bi bi nekk fii ak loolu yëpp dégg nga ak tamit xaru yi nit koo xam ne day dem jaaxle ni vraiment adduna bi su fekkee nii la nar a demee man lii jarul ma fi amul lu ma fiy def jarul ma fi toog rek mu daal dem rek wékk boppam buum waaw lii amul woon demoon na ba jóge fi amoon na fi bu yàgg diine tasaaroo mu jóge fi mu dem ba néew lool daanaka koo gis mu def ko dañ kii nag xel mi dafa manqué woon waaw waaye ni ñuy dégg tey ah mag mu xaru fee benn waaye ba ñu jullee gee ba pare mu dem wékk boppam ca ca ca garab ga wala kii ca li loola dafa war mbokk yi xaru du noppal nit xaru mooy coono li gën a rëy ci coono ku jàppane soo xaroo nga gé ma xaru te noppalu ma deete te noppalu da ngaa xamul yàlla lu mu wax da xamul luy diine képp ku xaru fii ak bis bis penc di di di taxaw xaw ma li ci des xaw ma million at la wala ñaari million wala juróom-ñetti million suñu maam yi fi romb tëdd nañ ñaata milliards at ba tey bisu penc li bi maam aadama ba léegi bis ñett doon yëpp ñu ngi xaar bis penc kon bis penc kañ dañoo xam kañ ba bisu penc di taxaw nit ki dañ koy dekkal la mu doon xaroo mu jël ko di ko xaroo soo doon pistolet muy tiire boppam mu metti lu raw la mu metti woon mu kadde kadde kadde kadde ba sedd ñu dellowaat boobu na mu meloon ñu yëkkatiwaat ko chargé pistolet ba mu dóoraat noona ki doon jàmm boppam paaka it day bocc rek waaw mu metti mu pat pat pat pat sedd biir bi defaruwaat mu dugaat bojjaat yàlla nañu yàlla musal bon xaru nañu xamal gone yi tasal ko siiwal ko xaru du solution xaru du nooflaay xaru musiba la ku xaru yàlla mere na la ni yàlla bañee ku dindi bakkanu jàmbur noonu la bañee ku nga dindi sa bakkan ndax moomu loo ko defoo ko fa du dëgg bon xaru boobu yàlla bu buñ ci dellu buñ ci delluwaat yal na yàlla fayal ñu agression yi ñaareel bi mooy njibar gi dañ kiy wax duñu sonn duñu tàyyi njibar mbokk yi baaxul njibar lu ko indi mooy ñàkk xam diine nit ñam noonu lañ tàmbalee ñëpp a yem yàlla bi ñu wàccee maam aadama ak Hawa ak Iblis da leen ne dem leen waaw dafa leen wàcce leen ngeen dem ci suuf dem leen imma yaati yannakum min nii hudan su ngeen demee ba sama njub di leen fa man tabi a hudaaya ah, mu ne su képp koo xam ne su boobaa topp na sama sama njub fala yadillu wala yashqa kooka du du réer du sànku ci àddina su deewee su demee it du texee di waaye diggante boobu balaa yàlla di wàcce yonentam loolu nit yàlla day bàyyi rek nit di jëfandikoo xelam nit day jëfandikoo bismillahi rahmaani nit ki lu mu am ci solution rek loolu mooy solution am ñoo ngi jégg lu mu am ci solution rek loolu mooy solution loolu moo fi indi njabar seytaane profité ci iblis naan waaw jàngaro sàngam amal naa ko saafara sàngam waaw ku amul doom lii ngay def nga rendi ganaar gu ñuul nga def lii nga def lee ku def lee nga def lee mu jekku nit ñi nax leen dugal leen ci ay yeneen yoo xam ne ci njibar waaye saa yu téere yàlla wàccee yonent dafay leeral ne yàlla bëggul lii nañ ko bàyyi waaye lépp lu mu teere dina ko indil solution bu koy remplacer waaw ana luy musluwaay lii kat dañ ko def pour musluwa ah, d'accord jël leen léegi indil nañ leen faatiya ak falax ak naasi waaw man kat lii dama doon jàqare ñu ne la indil nañ la ayatul kursi ñu ne nangam naam loo bëgg ci solution mu ngi ci biir diine ah, muy ay ñaanam muy ay jëfandikoo ay nañu dellu ci diine xoolal léegi même sax gàllaaj yi ni mu baree woon amoon na jamono joo xam ne doo gis nit koo xam ne mu ngi wékk ci ndigg li wékk ci loos wi wékk ci xale booy dem mu ngi yenu ba diis kenn musul xalaat xale bu génn te takkuñu bopp bi takk baat bi takk li dañ doon wax xale soo ko takkalul kii du fekkee suba kii semaine bi semaine bi ayu bis bi du ko fi fekkaat waaye loolu yëpp yàlla defal nañu tabaarakallah alxuraan bi ñuy jàng ak jaamu bi ñuy jàng loolu yëpp mu ngi wàññeeku buñ ci dellu ginnaaw nañu ragal loola dégg nga lii firndéem rek ñun même suñu génnul xam nañ ne yëf yi ndax mu ngi avancé ndax njibal mu ngi wàññeeku wala wàññeeku li koy xamee rek soo toogee fi ci jàkka ji fii la la saraxu bu xaaba yi di fekk waaw bis bu ne saraxu bu xaaba saraxu bu xaaba juróom-ñaari sondeel juróom-ñaari guro yu weex ay nangam indil nañ ma jox nañ ñu ba jox ñu ay càngaay yu néew càngaay yu néew jox nañu ko fii jox nañ sax càngaay yu néew yoo xam ne ragal nañ ne sàngee nañ ko ndax mu ngi taq mu ngi am ay salte bon loolu nañu moytu loolu mbokk yi du ñu dimbali dañuy indil problème suñu diggante suñu borom te kenn mësu ko def ba avancé ci loolu rek doy na beneen bi ci des mooy aqu doomu aadama yi mbokk yi nañu ragal borom bi te sàmmonteeg aqu doomu aadama yi l'islam dafa sàmm juróomi àq Moy aku bakkan nit dañu wara dañu wara sam sàmm bakkanam képp ku tuur deretu nit menacer nga bakkanam ñaarel bi moy alal kep kenn ku nek amna droit ci alalam kenn waru ko sacc kenn waru ko nax kenn waru ko ñettel bi moy lan mooy euh aska der nit dañu wara sam deram kenn warul yak deram motax ñu aramal jew aramal rambaj aramal wax ci nit lu la wóorul li wax ñu ñaaw nit dañ ko wara samal geñom geñoom mooy mu xam ne famille yam kat doomam yii di ko wax bàyyi maa ngi nii ay doom dëggan doomam dëggantaan lañu moo tax ñu tere njaaloo ndax nit ki bëtt sàkket dem am lu mu seqoog nit ba kooko jur fa doom nit ki naan sama doom loolu moo tax yàlla bañ yu mel noona bon àq yii ak àqu pas-pas muy nit ki gëm yàllam dañ ko war a sàmmal lii moo tax ëtt bi lépp lu fi génn di menacer pas-pas bu wér rek da nga jullit ñëpp jóg waaw moo tax su nit jógee fii ah, di xas fële yonent bi mbaam mu koy deseene jullit ñëpp jógandoo moo tax bi jikko bi bi yeneen ah, ñenn ci tubaab yi bëggee dugal fii ay jikko yu ngóor jigéen jullit yëpp jóg ne doo am suñu réew ndax ñun lii dafa woroo ak suñuy pas-pas li moo tax bépp jikko bu ñaaw bu ñëw mbooloo mi ñoo war a taxaw reeteet ko ne lii waru fi nekk war war na fee jóg bon àq yooyu lislaam moo ko sàmm nañ ko sàmm yonent bi li mu mujjee dénkaane balaa moo faatu nga xam ne sukaraat rek moo des mu ñuy dénk ginnaaw bi mu dénkee jaamu yàlla ak wéetal yàlla ak lépp daf ñoo ak àq yi ragal leen yàlla ci ñi ngeen yilif même sa mbindaan même sa sufoor même ki nga emploi bi ngay jël di ko fay nga yéexal payam mbaa nga bañ ko fay di dem di jox ay géwél di jox ay leneen fu ñu lay tagg loolu lépp yàlla dana ko isaab fifteen par fifteen dërëm par dërëm nañu ragal yàlla ci àqu doomu aadama yi lii la yent bi wax ba fay bi ci des mooy rek mooy euh, appareil yi nga xam ne moom moo fees suñu société bi tey mooy Euh, nouvelle technologie de l'information et de la communication portable yi portable yi ngi dox suñu diggante ak suñu borom nañ ko wañi portable mok paaka ñoo yem ñaari bor la bor buy jariñ ak bor buy lor nañu fexé ñu jariño li ci jariñ té ñu moytu lu ci lu ci yaq mu ngi yàq ci mu ngi doon yàq ci xalé yi légui mu ngi yàq sax ci magni ñi da nga gis nit ko xamné ne mënuñoo fexe sax ba fay portable ci jàkka yi da nga jakk ko xamné nit day tok portable mu sonné ci kaw nit ñi mu déranger nit ñi waxuma wayé japp na né appel bi mënuñu ko mënu ko baña a mënoo koo bañ a décroché fii la décroché alo waaw ma ngi jàkka ji ah ma ngi même tuuti rek waaw xam naa ko affaire ciment bi la waaw après incha allah mu ci yoon bi loola musiba la nañ ko moytu te ñuy fexe di sàmm xale yi xale kenn du ko bàyyee portable yeeru portable musiba la kasara la lu ne musiba bu ne mu ngi ci portable yi nañ ko sàmm nañ ko bax leneen li mooy réseau yi réseau yi mu ngi yàq diin nit ñi nañu bàyyi xale yi ñëpp ñu ngi ci réseau yi léegi réseau yi ŋawti ŋawti benn information réseau information nañ ko moytu na ngeen moytu lépp lu ñu wax ci média yi rek sànni rek ñu ne ah, dëkk bi toj na ndeke diw moo def nangam ndeke diw moo def nii doomu diw ndeke diw moo càcc le réseau borom bi dafa ne in jaakum faasiqun bi naba in faasiq kàccoor su leen dikkalee information dégg nga fata bayyanu in jaakum faasiqun bi naba in fata bayyanu mu ne leerlu leen ko mu ne antusi bu xaw man balaa ngeen di dal ci aw nit bi jaxaala ci réer ak ñàkk xam waaw wa tusbihu ala ma faaltum naadimin ngeen mujj réccu li ngeen def nañu moytu réseau ñaareel bi ñi nga xam ne ñu ngi ci réseau bi di envoyé nit ay saaga tey ñi déglu réseau xam nañ ko xale yi saaga yu ñaaw saaga président saaga milice def nii wax yu ñaaw wax nañu moytu loolu mbokk yi loolu du diine euh, leneen li ci des mooy dénkaane rek weeru koor kooru farata gi jeex na euh, waaye am na juróom benni fan yoo xam ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam loola buuñaa la kado la mooy weer wi topp ci weeru koor muy shawwaal képp ku ci farlu sabablu ci woor ci juróom benni fan ci biir weer wi da nga danañ la bindal yoolu comme koo xam ne yaa ngi woor at mi yëpp bon xéewal googu nañu moytu bu ñu ko xañ suñu bopp ñu delluwaate ci li nga xam ne loolu lañ doon wax ci bisu iid yi mooy lan mooy fàttaliku suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi loru ci biir àddina bi talluñu iid talluñu leneen talluñu leneen lu mel ni palestiniens yi ci Israël ñu ngi leen di bundaxataal dégg nga ci barab yoo xam ne ca barab yu sell barab foofu nga xam ne euh, muy Jérusalem muy Gaza muy baytul maqdis ba ci biir jàkka ji ñu leen di fekk foofu di leen bundaxataal ak di leen fetal Rohingya yi ca Birmanie ba tey it euh, julli ñi suñu seralee rek yëf yi nekkaat ah Ouïghour ya ca Chine Cachemire mbokk yi nga xam ne fépp fu minorité jullit nekk ñu lay néewal doole di la bundaxataal ñoo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jàppale la dégg nga mu taxaw la ñoo ngi tamit euh, mujjee rek di fàttaliku suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu nekk ndooloon fii bari nañu lool ci at yi ñu faat te wóor nañu wóor yàlla ñun ñëpp xam nañ ne su dul woon borom bi moo leen jël si ñu faatu day fekk ñoo ngi toog ak ñun loola nag xëy na mënuñu leen lim seen njaboot a ngi fi ñoom ñëpp waaye nañu xam ne musuñu leen fàtte benn yoon ñu ngi leen di ñaanal ñu mel ni ñoom Baye ndion Fall nga xamne mo fi nekkon délégué ñom Baye Papa Fodé Sané ñom Insa sambu ñom maskan ñom ñoom Baddo Sène Amadou Silla ñoo lim ñep ay goram ay jigenam ay magam ay ndawam yalla na leen yàlla xare aljana yalla na yalla yegge fil rasul ala ngeen bal ñu ak sen mbokku ku ñak solo ku doye di koo xam ne sori soriwul di taxaw fi rek di wax di beuril wax ngeen bal ñu ak togn yek yep ngeen bal ñu ak